mbokk yi jërë ngeen jëf ñu ngi leen di nuyu di leen gërëm bu baax di am mbégte teewaat fii ci ndimbalu suñu borom ak kattanam di leen ziar bu baax a baax di leen balu ak yéen itam di leen baal di ñaan tamit suñu borom uh, jàppale ñu waaye te musal ñu ci waa kër ñàkk jàmm di gërëm bu baax uh, El Hadji Modou Diouf uh, Top Ablaye Fallou Sanjogu son yubbu Aïcha ma jigéen ak euh, ñoom kànji Ousmane ah, Pape ñëpp ah ñu ngi leen di nuyu waa solution yëpp ñu ngi leen nuyu bu baax a baax euh, di nuyu Mamour Diop ah Walf Touba di nuyu ñëpp nag ñi rafetlu liggéey bi yëpp di am mbégte waaye tamit di ñaan suñu borom suturaal ñu ba jubal suñu kàddu waaye tamit mosul ci waa kër ñàkk jàmm loolu dafa jarañ ñaan. musul ñu ci fitna ak musibaay ñiy jàpp di tëj di tumal ay gor bëgg a toroxal ay gor yàlla na nu yàlla musal seen ay waaye tamit lépp loo xam ne rek ñu ngi koy yéenee di ko jëmale ci doomu gor ñi di ko jëmale ci nit ñi ngir bëgg leen a toroxal teg leen ci kaso ndaxte dama gis ni li xew yépp pour toroxal nit ñi la pour wàññi leen waaye itam pour tiital leen loolu lépp ñuy def nag yàlla na leen ko suñu boroom fay bu mu nangul jubbanti jéem a baax parce que nag bari na ci lu nit di teg nit da ko mës ta mos wala kenn mësu ko kaa teg ndaxte bari na ci ñuy tëjaate di dugal nit ñi kaso bu yàlla dogaloon ñu dugg kaso wala seen njaboot dugg kaso seen ndey seen baay wala bokk ñoom wala seeni doom ba ñu xam kaso ak wéetaay ak soriwaay. nu def nànk dal tey ndaxte tuuma mën nga ko teg nit alalu gor la waaye nag kenn du rëcc ku dem garde à vue garde à vue mandat de dépôt mu mel ne léegi fowukaay la boo xam ne dañ koy def waaye te ciblé ay nit sunu xel dem ci Pape njaay ñu ngi koy ñaanal mu génn ñu ne sunu xel dem ci Babacar ture Kewloo jàmbaar ñu ngi koy ñaanal mu génn contrôle judiciaire Pape Alé Niang ay journaliste lan li jëm ci Coro Mandela ñu ngi koy ñaanal mu génn lu tax mbiri Coro ak Walfadjri di ñu intéressé parce que acharnement bi nag moom léegi li naan li raam egg na ci ñag ba fa la jëmoon mais egg na fa te nag faaw ñu dog ko parce que bu dee ni ab jaan la waxuma sax ci mënu bi mënu bi il faut ma dëkk ci dinañ wax ci dialogue bi Sonko ak yi ñu ngi dialogué pour man dinaa leen wax lu tax mais aussi dinañ wax ci génnu président bi ak El Hadj Assane Gueye yëpp dinañ ci wax mais dañuy njëkk presse bi ak groupe Walfadjri ak singili gi lii nag tàmbaliwul tey waaye tey jii dafa tegaloo ndaxte ci mars deux mille vingt et ak tey jii. tëj nañ fi wal fajri tëjaat ko fi une semaine ba ne signalam dañ koy dindi wolof njaay dafa ne koo ne duma ko topp fa ngeen jëm moo soriwul ñu xëy jàpp Pape Ndiaye biñ ko njëkkee jàpp ci loo xam ne moom mbiri boppam la wal fajri dañ cee maandu déggoo sax ku ciy toog di ci wax lu mo lu mooy euh, jàppale gi nga koy jàppale ndaxte sa nawle la dama jàppoon ni loolu lépp tey jii pour waajaloon li xew tey la ndaxte dañ ko bëggoon a jàpp xoqatal ko pour bu génnee mu rigal pam Ndiaye génn nekk la mu nekkoon di def liggéeyam na mu ko waroon defee parce que des fois dañ lay jàpp pour wàññi la ndaxte bu dee ni ab Cheikh Yérim Seck lan mën a jàpp ci viol ba condamné ko mu am fitu ak sañ-sañu mën a toogaat ci plateau tele yi mën di bind ay livre di ko bind ci deru gor ñi te amu ci lu mu ciy rus amu ci lu mu ciy xool ak tuumaam ak nu mu toll nagam Cheikh Yérim moo am courage mun a toogaat ci média yi bay bind ay livre kon Pape Ndiaye ñëpp xamul na ni buñ ko jàppee tamit bu buñ ko waatee day toogaat parce que fi lu luñ koy xeebee wala luñ ko fay yabee tey jii ñu naan ay mbiri Coro Mandela topp kaa xam ne buñ ko toppoon ndax wal fajri la mu foo wax ak la mu wax petit déj dañ naan mbiri wal fajri mais des fois dañ lay teg loo xam ne pour léegi ñu ne Walfadjri rocc nañ seen loxo déedéet jàpp ko ci mbiri toppukaa du tee coro doon élément wu Walfadjri kon nañ jàpp ni ab élément wu Walfadjri moom la ñu jàpp ak lañu teg ca kawam ak la la ko war a làkk lu mën ci doon dossier bi duñ ci dugg waaye bi ñuy traité Thioro na ko traité ndax sunu nawlee traité ko ab confrère wala ab consoeur ndaxte nag Pape Alé Niang mi liggéeyul Walf Fadjri ba mu am lanteeg yoon Walf Fadjri da cee taxaw ba ñëpp yëg ni Walf Fadjri taxaw na ci ak keneen ak keneen kon tey jii mbiru Thioro dafa laaj taxawaay surtout ak situation bi mu toll ak moment bi ñu ko jàpp ci émission bi nu gënoon a seetaan ci koor gi mu nekk fa di présenté di ko def ci anam goo xam ne man comprendre ma woon mais bi ma waxee dam man sax dama ne lan la fa doon def. waaye bëgg liggéeyam am ngëm-ngëm ak pas-pas parce que koro boo koy dégg dangay xam ne ku bëgg liggéeyam la ko am pas-pas mais aussi ku am ngëm-ngëm te nguur gi ak ñi ñu àndal système bi fi ne bëggatul loolu maanaam ñoom li ñu bëgg mooy koo xam ne day jàkkaarloog ñoom di leen poser ay questions yu amul relance di leen ràccal lalal leen basan ñi gunnaandaat ak di nooyi di wax lu leen neex di tànn questions yi ngi leen di poser ak réponse yan war a répondre ñoom loolu la ñu bëgg ku mel noonu di nga nekk directeur média ba nga ne dina signer ak yow ay convention di la jox million ak milliards yu dul jeex di la jox ay publicité yu dul jeex bi ñuy tukk di la yóbbaale bi ñuy def émission wala na la kay présenté ko ku dox ku loolu moom ku ko doxee wala nga nga yemale sa bopp ci présenté journal kase yemale sa bopp ci présenté journal kase kase kase képp koo xam ne def na ko dinañ fexe ba yow moomule ñu may la jàmm parce que journaliste bu classique boobu bu nooy boobu moom la kii di président Macky Sall bëgg loolu nag bëgg ko ak am ko day wute ndaxte nag ñun duñu géwlu kenn kenn lalalu nu basang ñi xalamal kenn doonu wunu xalam doonu wunu tagge doonu wunu nag di raayaate loolu moom doonu wun ko te loolu dama jàpp ni ñu ëpp ci réew mi doonu wunu loolu ndaxte ku leen bëgg a woo ci tagg président doon géwélam di ko ràccal loolu moom am na ñoo xam ne mënuñu ko te ñi ëpp ci ñooñu nag danoo nekk biir wal fajri kon nguur gi nanu riggal bu dee woo Moustapha jàpp Coro jàpp Pape Ndiaye jàpp Babacar Kewlo mooy tax ñu ne presse bi nanu riggal ba ku mu ne ci ñun léegi jël ay gants sol di xool lan ngay wax loo waxul lu tax ma ni acharnement la contre le groupe ri ci koor gi dafa am ñaar yu ma marke mooy maam biram waj yàlla na ko suñ borom sàmm aar ko doon journaliste professionnel dafay toog ci keppaar gi di wax maître Djibril War woo ko di ko tëkku xam na ñoom dañoo jàpp ñu dem ba sax ne kii di euh, Omar Diagne Cheikh Omar Diagne la ma ko defoon maanaam ci biir waxam mu mel ne loolu la koy tëkkoo ñu gis ci kor gi Thierno Lo ñëw tëkkuwaat maam Biram Wathie ñu bari di ko ree ak di ko kafe te xamuñu ni ñi nekk ci nguur gi loolu mooy seen état d'esprit mooy ñun li ñu nekkee ak li ñuy def képp ku ci waxul jàmm mën ngaa dem prison wala ñu woola ci yoon te boo xoolee kaaw Babacar kewloo nga xool woo bin woo Moustapha Moustapha boo koy woo loo koy woowee boobaa Sénégal loo koy wum si waa lu muy mais ñu naan mbiri Pam Ndiaye mais c'est juste de l'intimidation maanaam nappee pour que léegi ñu ne xëbal yat wu njëkk wi day dal léegi nanu dóor yat wi léegi yamatul sax ci Pam Ndiaye wala coro léegi kilifa ga la ñuy jëli loolu da dañ koy yàq ndaxte ñun nag duñu ay tàppet duñu ay yambar fanaanu ci nag lu mu leen jaral pour ñu toroxal ñu nanu ko jaral ba kenn duñ toroxal parce que on nous mais on ne nous déshonore bakk boobu réew mi yëpp a ko bokk te Sénégal boo xoolee jamono yi maam ba tey jii ñëpp noonu lañuy doxe ba ci Seydi Lamine Niass mi tey jii di ri bu doon Walf ay caaxaan la Walf bu Seydi demee Walf jeex mais Seydi dafa dem Walf des ça veut dire kon mbir mi la tëgg tasu ko tey jii benn Seydi moo dem mais ñaata Seydi. léegi nag man ma ñëw ci le fait que léegi Walfadjri woote bi yomb lumière woote bi yomb mooy da ngay gis benn élément Walfadjri bu ñu woo Pape Ndiaye nga xëy dégg ñu ne Pape Ndiaye bi muy dem moom rek moo dem wuy ji convocation ah ñu ne coro bi muy dem ma xama séeram ak xaritam Salma ñoo ànd non warul demee noonu mais dañ leen war a gunge ji nga taat wu rëy buuxante lay jariñ Walfadjri da am nu mu toll waruñu fa woo benn nit mu mel ne un citoyen ordinaire la ñu woo muy wuy ji mais groupe bi yëpp war nañ jug gunge la parce que am na nooy demee da ngay oyof toll ba neex a def ci poos wala neex a garder mais bu ne wonan ma sàmba wala ma dem ma ñëpp jug fan si club bi jug mais nag taxawaay boobu mooy tax bu ñu eggee ñu ne ah ñii kat am na mbooloo am nañ ginnaaw ndaxte kilifa diine yi ci réew mi bu dee mënuñu leen fekk fa ñu ne jàpp leen seen mbooloo moo tax ak lu ñu mën a def ndaxte am na kilifa gun fi tuddoon ci mbir yi garaaw président la buñ ko jàppoon réew mi tàkk lam la waral loolu mbooloom ndaxte bu doon ni ab sant kase la sëñ Assane Mbacke kenn du ko jàpp hmm? mais mbooloo mooy indi loolu. MC Niass audio ya mu génne woon bu du woon mbooloom heure bi leneen lay wax mbooloom wal fajri dafa war a amal njariñ wal fajri biñ dajee fii wal fajri une semaine mais mbooloo mi daje fii tax na képp koo xam ne yaa ngi nekk ci tànk tëjaat wal fajri di nga ko waajaat kon bu nu waree woo Moustapha Thioro wala Pape Ndiaye war nañu sentir ni woo nañu koo xam ne voix la des sans voix la Sidi Lamine bu ñu ko musaana woo ñëpp dañuy yëg ni woo nañu ndaanaan. ki ko woo sax dina xam ne ki mu woo lu ku ñuy jël di patam patamee di tëj ci taxawaay par ndaxte nag euh, lii di 2016 euh, yéen a ngi fàttaliku 2016 ci référendum bi bi ñoom Abdou Karim Sall ñu ARTP mais mbooloo min fekk buntu wal fajri moo dox jur boobu signal wal fajri kenn daggu ko ak ndem ci yàlla Babacar Touré sénéra tey jii Serigne Lamine Niass ñaata yoon lañ ko fi jiital bëgg ko téye. mais mbooloo ak taxawaay moo tax loolu amul li mu fi jote woon ak euh, xam ñoom karaay ak yooyu ba ni léegi mais taxawaay moo waraloon boobu wal fajiri li namoon ci moom amul taxawaay boobu daa war di wéy waratuñ convoqué benn nit mu mel ne un citoyen simple boo xam ne du dara dem ñu ne sëram la àndal wala ñu ne rakkam la àndal wala xaritam dem moom dong rek taxaw. ki gën tuuti ci wal fajri bu ñu ko woowee danoo war a xam ni woo nañu koo xam ne ci wal fajri la bokk ndax wal fajri amul nguur gi amul alal waaye am na sénégalais yi kon képp ku ñu woo sénégalais danoo war a taxaw ñépp taxaw ñu xam ne ki ñu woo kat kenn la ci réew bi kenn la koo xam ne fu réew mi jaaxle ndaxte nag wal fajri mii man di Cheikh Baara Ndiaye di musafaa di Mame Biram di keneen ak keneen. di Coro di Pam Ndiaye kenn mësu fa toog di wax sa problème mu bopp te pourtant am nañu ay problème problème yi sénégalais yëpp di am ñun am nañ ko waaye problème mu sénégalais yi lañuy wax ba li leen ciy fekk di leen ci wax fekk loolu nag dafa war a am lu muy jariñ mooy taxawaay boo xam ne dal leen ko war a taxawu saa su lii xewee loolu mu doonoon loo xam ne dama ko doon wax kon mbir mi xam nañ fi noon bi jëm ak ñun. loolu nag dafa laaj taxawaay parce que noonu boo xamul mooy moo la war a def problème mais noonu boo xam fi mu jëm ak yow waru fa egg ak yow kon taxawaay bi xeebu ma ko de mais nan ko yokk nan yokk taxawaay bi ba bu nu kenn ci presse su Sénégal ñëpp yëg ni woo nañu kenn tëj nañ fi seen TV mu mel ne dara xewul loolu ñu doon seetaan ci seen TV mooy wal di wal ba dugg biir wal fajri jàpp na Ahmed dara xëy ñu ne waratul def revue de presse parce que day politique teguñu ko fenn ndaxte bari na ci ñi nekk ci presse bi di politique kon ne di def seen liggéey amul kenn ku ko jàppale ci presse bi loolu ñu doon seetaan ci Ahmed dara mooy raam ba egg fii li ñu may nguur gi moo ëpp li ñu may kilifa yi moo ëpp mais jàpp ab journaliste wala xañ ko liggéeyam loolu warul yomb tëj fii une semaine Walfadjri loolu warul doon yu yomb xolal 7TV gii may mën a nduur fay jiite am na fi ab reporter bu ñu woowoon ci yoon may mën a ndur fay jigéen jël otoom di taxawu xale bi di taxawu xale bi ban bàyyi ko taxawaay boobu may mun a ndir fay am ci njabootam taxawaay boobu la ñëpp war a am ci seen njaboot mooy bu ñu jàppee benn reporter wala kenn ñu yëkk taxawaay bi taxawaay bi du rek toog di wax mais taxawaay bi dafa war a doon génn ñu yëg ni ñii génn nañu. ñu yëg nit ñii gunge nañu waa ji même bii dem ci kanam yoon ak la fu mën a fekk mais mu am gunge am ginnaaw lii daal wal fajri nag wal fu mën nañ ci wéet ndaxte nag ku la ñee du la jàppale du la dimbali te bari na ci presse bi ñoo xam ne dañoo ñee wal fajri ndaxte nag koor gi li fi wal fajri def daf fi tege ni dege waaw waaw ab ministre day toog fële am mille vues wal fu woo ab xale boo xam ne tekkeegul dara ci politique mu am dix mille jëm ko wala vingt mille loolu tamit ñu bari neexu leen loolu sax mun na am indi sax mën na sax mu tax mu indi président dem ca Futurs Médias Assane dalal ko su Korité waaw ah, ndaxte bis boobu nag kenn wujjewul ci information waaw loolu am nag tey jii di El Hadj Assane sunu doyen. sunu kilifa référence waxtaan wi am na protocole d'interview des fois yooyu du yomb toog kilifa président di wax ak moom critiques gi bari na mais man bëggoon naa Assane Gueye Assane sama doom baay sama kilifa mais balaa muy jeexal mu laaj président na ko mbiri Pape Ndiaye loo ci xam ñaanal ko njekk comme ni ko Papa Ngagne Ndiaye defee woon ci Pape Alé dafa rafet bi ko Pape Ngagne defee. te pour man Assane Gueye moo ci gën a na jekk parce que Assane Gueye président la toogal ne ko président Pam Ndiaye ak Thioro ñu ngi ci kaso bi xam ne Assane Lamine dafa neex bu ma sañoon kan ñu bàyyil ndaxte bi ñu jàppee kii di Abdou Karim Gueye kurum xaq mais bi président dalalee rappeurs yi mais kii di Simon dafa dem ne wax ne nan bàyyi Abdou Karim Gueye président ne ko nan laaj liberté provisoire ñu may ko ko te gëm naa ni Simon ëppul dayoo El Hadj Assane Gueye kon Assane dafa waroon na waxal Walfadjri mais waxal Pape Ndiaye dafa jëkkoon bu ko defoon day élégant day rafet loolu Assane mu naam da ko fàtte loolu nag mu ñuy indi ci dialogue bi dialogue mi ngi am ci diggante Ousmane Sonko ak Macky Sall mais dialogue à distance la Macky Sall bisu tabaski dafa toog jàkkaarloo ak euh, kii di euh, Assane lumière def appel o dialogue Ousmane Sonko sama bi Macky Sall julli ci it bi la njëkkee ci jumaa ji après ngoon gu mu feddali ko mais da ngay sentir ni kii di Ousmane Sonko tontu na ko parce que nee na ko pour faire la paix il faut être deux maanaam jàmm ñaara koy dox tekki ne les détenus politiques na leen bàyyi kon Ousmane Sonko teg na ay conditions pour que ñu mën a dialoguer mooy. lépp loo xam ne day taal réew mi te nguur gi di ko jafal nan ko teg ci suuf teg ci partisan bi nekk ci kaso bu ñu bàyyi leen bu leen bàyyi dialogue mën naa am am ñu ne Ousmane ko warul wax loolu mais gëm naa ni Ousmane président li muy wax sax naan ku gedd sa yaay ay bëggul ku gedd Macky bëggul ku gedd mais day sóoraale ku gedd maanaam bëggul ku gedd mais day sóoraale ku parce que président Macky Sall li mu gën a bëgg ci àddina bu bu bu ko Sonko defaloon pour man coo coow li jeex mooy Sonko toog Macky Sall toog comme na mu amoon ca Covid ba Macky moo bëgg a toog Sonko udda na ko ci nu ne parce que dafa jàppoon ni Covid bi yoon la woon ngir mu mën a am Sonko mais cuune gi ñu cuunee mooy tax bi nekkee ci biir Covid bi parce que Covid bi mii Sonko di Macky lépp daloon na de ba ba ñuy egg ci mbiri Adji Sarr mbiri Adji Sarr ñu yàq lépp loo tax ma ni Macky Euh, euh, noonu maanaam ay soppe yu doof la yor parce que soppe yu dof mooy ñoo xam ne lépp loo tabax pour mu rafet rek bu ñëwee ñu dugal parce que yow fi Adji Sarr boo xool ni ñu ko tëggee ba tey jii ak Sidi Mohamed yi tudd nga xam ne ay soppe yu dof yoo xam ne bëggoon a tëgg ab film daanal ci Ousmane Sonko te scénario bi baaxul le président Macky Sall booba ak tey bëgg naa dajeek Sonko ci lu bari xamul tax te li koy indi mooy nitu Sonko yi ñu jàpp ci kaso bi. jàpp journaliste jàpp ma sàmba jàpp ma Demba jàpp secretaire général Pastef coordonnateur Nemmeeku tuur ñu jàpp ko Fadilou Keita ñii ñu takkal leen ay bracelet ñii ñu lii leen mais loolu jàpp googu mooy képp kun ci woo garde à vue mandat de dépôt rek la lay tegal loolu lu muy firi loolu xaayaan ku dégg séeréer mooy boo bëggee ma bàyyi say nit da ngay ñëw togg ak man wax ak man man noonu laa ko dégg ah. mooy léegi woo naa la ba sonn ci jàmm woo naa la ba sonn ci lii léegi nag il faut que nga ñëw toog ñu waxtaan su les règles du jeu may waxtaan bi mooy say nit ñi ngi ci kaso bi parce que tamit ki nga Ousmane Sonko lu tax ma ma ni jàpp gi ñu jàpp dafa bokk ci appel dialogue bi jàpp même boo xoolee ni jàpp gi jàpp jomaay mu oyof parce que dem nañ ba xam ne jomaay ku jege Ousmane sonk la te ku Ousmane Sonko wóolu la te Ousmane Sonko ku ñeewant Bassirou Jomaay Fay la da ko ñeewant. bëgg gi mu bëgg jomaay nag mun na pousser Sonko mu jéem a xool nan lay dialoguer pour ñu libérer jomaay ak ñeneen parce que nag ñu jàpp Fadilou Keita jàpp jomaay jàpp keneen loolu Ousmane Sonko du neex ci moom parce que même ñee bu ñu attanee kaso bi parce que kaso li ci bon mooy boo fa nekkee kenn du la lijjanti doo lijjanti sa bopp mais da lay lijjanti jomaay bu demee mais xanaa doomu jomaay jabaru jomaay ak kii Ousmane Sonko dina wax ak ñoom yërmande goog mi am ci ñoom. est-ce que nekkul ne danoo bëgg a pousser Ousmane Sonko ba mu sës léegi bu poussé ba mu sës amatul fu mu wéeru mu ne xaaral ma dem dialogue ji pour génne ci samay nit parce que amoon na ci mbiri Karim Wade bi Macky Sall wootee dialogue dialogue boobu le Omar Sarr dafa demoon ñu naan Ablaye Wade yónni wu ko mais dem gi Omar Sarr dem moo génne kii di usmaan Sonko moo génnee kii di Karim Wade. beneen bi ci topp xalifa Ababacar Sall bi muy génn fa la njëkkee Masaalikul Jinaan Masaalikul Jinaan la fa amoon lan la dialogue xool leen ni yu fay doon doxalee Abdoulaye Wade ak Serigne Ba ay kii nga xam ne dialogue la peut-être defuñu ko dialogue boo xam ne danoo toog présidence woote mais am na luñ fa lijjanti ba xalifa Ababacar Sall génn ñu pare ci Abdoulaye Wade seeti Macky mais Macky moo yàq loolu parce que moom tamit ab laay Wade. mën na am la nasoon daa am lu dox ci diggante bi parce que président mën na bëgg jàmm mais ñi ko wër mën nañ bañ a bëgg jàmm te des fois li sonal tunu njiit yi yépp mooy ñi leen wër seen entourage kon li dialogue bi mën na nekk loolu waaye Ousmane Sonko daf wan na Macky Sall ni man fa ma nekkoon maa ngi fa mooy woo nga ma dialogue Ousmane Sonko teg ay condition am mais teg ci génne. rapport analyse am analyse yi ne woon dañ kaa bëggoon a assassiné wala ñu bugg ko xëpp tooke empoisonnement Ousmane Sonko ci jamono ji wootee dialogue pour tontu leen mu génne kayit boobu mooy man la ma nekkoon maa ngi ci mooy yéen sama xeex ak yéen guerre saf mondial duma leen may dara ndax Ousmane Sonko li wolof yi di wax moo ko dal mooy ku la yéene kaso yéene la dee. naa maanaam Ousmane Sonko ñaar la gars yi namm ci moom buñ ko amul jël mooy tëj ko kaso bi wala leneen comme moom nu mu ko waxee parce que moom nee na da ko bëggoon assassiné wala ñu li moom loolu la wax xaw ma ci dara nag léegi ñaar yooyu ku la ko yéene mais yow ah, looy waxateeg moom kon Ousmane ko wan na leen ni fa ma taxawoon démb fa laa taxawaat loolu tax ma gëm ni ñoom ñaar dialogué nan nga gis kii Marius Sagna jege loolu Ousmane ko ne dialogue pour mu am il faut que parce que espace bi gën a jekk ci dialogue ci politique xam mooy fan mooy assemblée nationale espace bi gën a jekk ci dialogue mooy assemblée nationale assemblée nationale ay weer a ngi ñu tëj ko te pourtant opposition bi seen yéene moo doon article vingt neuf trente ak trente un ñu xool ko ci code électoral bi ñaari article yooyu buñ ko lijjanti woon si Karim Wade. jaratu ko xalifa jaratu ko mais Sonko ko Mbaye ñaa sax jeex ak atte bu nu mën a demee article bi day régler loolu te loolu député yi ci Yewwi Askan Wi ñoom Guy Marius Sagna seen yéene moo doon dem assemblée nationale taxaw ci loolu ñu xam loolu tëjal leen assemblée bi bi ci Guy Marius Sagna waxee loolu dafa pertinant parce que espace bi gën a jekk ci dialogue politique assemblée nationale la te assemblée bi ni mu tëddee nii ku ne am 80 députés. mais foofu waxtaan wi day neex kon jaru woon ñuy woote ci pale ba naan dañuy dialogue comme président nañ dialogue jaru yàgg semaine ak une semaine doy na kon kay ñu ubbi assemblée bi point yi bëri ñu waxtaanee ko fa ci wàllu politique wax ci ministre de l' intérieur ki war a organiser élection parce que man dama gëm ni lépp lu ñu war a waxtaanee bokk na ci Antoine warul doon lii di ministre de l' intérieur bi organiser élection nan defoon ak Cheikh Gueye moom lañ war a def mooy ut ministre boo xam ne day maandum organiser élection mais man élection yu Antoine Diome di organiser doyuma man parce que ni mu demee ci local ak législative ak direction des élections taxawaay bi ñu taxaw tax na mooy poser question parce que fii la ñu gis ci local liste yeew yi bëri ñu annulé leen yeew yi fu bëri amu fa woon candidat ci élection locale élection député yi ñu gis ab liste suppléant bu dem compétir loolu musul am ci àddina te mosul am ci réew di Sénégal te ci jamono ji Antoine nekk ministre de l'intérieur la jiite élection ci Sénégal ki def loolu du may opposition leneen ci élection présidentielle ak taxawaay bi ñu am ci Ousmane Sonko ak nin koy gérer kon loolu mu war a doon loo xam ne ñoom dañu caa bara bàyyi xel teg ci bulletin unique waroon na mën a am ci Sénégal lu tax waxuñu ci parrainage bi xam ne seggukaay la loolu lu ñu war a waxtaanee la léegi bu doon mën aay Ousmane Sonko bu demee ba dialogue mënta ñàkk président nee na nan waxtaan dama naan ko man mënumaa ñëw ci dialogue waaye sama secrétaire général partie moo may représenté mënu ko kan mu ne ko mooy Bassirou Diomaye fay bëgg naa dem ci dialogue waaye faw jom man Diomaye ñamey représenté mi ngi ci kaso bi tegal ko condition boobu affaire yi yoote la rek yoote rek tegal ko condition boobu mooy man sama parti ñi ma wër ñëpp ñi ngi ci kaso bi fexeel ba ñoo ñëpp féex ma doog a ñëw ci dialogue bu dee ba mënta ñàkk na ko tegal loolu garsa garsa gi du ay dóore du ay saaga du rayante garsa garsa gi yenn saay yi doxale la ci wàllu politique politique dangay ngay yoote loolu tax dialogue bi lu mën a ne la waaye na njëkkee ci assemblée loolu Guy Marius Sagna wax moo tax àjjuma président assemblée woote waat na parce que mënuñu woote dialogue ca ca palais de la république président woote ko te dialogue boobu te ca jamono jooju ñu ngi tëj assemblée te assemblée fa la dialogue jekkee ci politique boo xamee ni politique di doxee léegi nag dialogue bi li ko président bëgg tamit ñu bari xa man am na lu ma ci nand mooy la xewoon parce que Macky Sall il faut ngeen xam ne yàgg naa woote dialogue Macky Sall bi mu njëkkee falu 2019 pour man loolu rek mooy dialogue bu sincère heure bu wootee dialogue am na lu mu ci bëgg. mooy dafa ne bàyyi naa njuuj njaaj yi ji nga bi mu waxee loolu ci la ko Karim Idrissa Seck dem fekki maanaam moom bu wootee dialogue mbaal la bu mu sànni mbaal boobu dina am ñu mu jàpp bi mu wootee dialogue ci mbiri Karim Wade ak yooyu ci la jàpp Omar Sarr Omar saar ma nga ca moom seetloo heure bu paree ci dialogue ñenn ci opposition bi dinañ ko fekki léegi nag comme teg nañ F24 opposition bi taxaw nañ ak Yewwi Askan Wi te gars yi ñoom bokkuñu problème Khalifa Sonko. ak kii di Khalifa bokkuñu pro ak euh, Karim bokkuñu problème kon mënuñu bokk ay solution Sonko li mu bëgg dafay jàpp ni xeex a ko koy may mais ñoo dañoo jàpp ni maslaa moo leen koy may ñi bëgg maslaa nag ñooñu mun nañ dem dialogue loolu dialogue foofu lañ ko dugal kon dialogue bi daa am mbaal bi muy sànni dina am ñu mu jàpp mais aussi dina mën a tasaare opposition bi mais aussi dina mën a yàq xelu ñenn ñi. dialogue boobu nag ka jiitu du kenn ku dul Idrissa Seck moom Macky da ko sànni ci terrain bi na ko demal jouer xam nga Idrissa Seck mooy neuf boo xam ne dañ ko solal numéro neuf na ko demal dugal muy dóor ci tuus yi parce que mënoo ni dama ñëw opposition maay chef de l'opposition ñëw di dal ci ko opposition bi Idrissa Seck mi gars yi naan dafa muus ak marta muusante mais des fois day def yoo xam ne on a l'impression ko ñun danoo xeeb ci xalaat wala ci xel yow nga ni opposant laa léegi candidat mais nga ñëw di dóor ci opposition bi loolu xel nangu ko te li lay wan ni sa Seck amatul ambition Idrissa Seck ku moom yaa ko tooñ lu tax amatul ambition mooy Idrissa Seck dafa génn mu ne man maay chef de l'opposition Sonko ne ko jëlal waaye moom jamono ji muy xëccoo chef de l'opposition Sonko chef d'état lay xëccoo maanaam sa Seck ambition am ci chef de l'opposition la yem Sonko ambition ci chef d'état la jëm comme ñaar ñi bokkuñu fi ñu jëm kon so Idrissa Seck chef de l'opposition jëlal Sonko nee na moom chef d'état la bëgg a doon kon ñaar ñi bokkuñu Idrissa Seck moo la gën a xam ne ndaare la jël parce que bu ñëwoon mu ne man maay doon futur chef de l'état nu mën a dégg Idrissa Seck parce que boo nekkee candidat pour dem élection la gagné mais nekk nekk nekk nga ni candidat laa ba pare ñëw di xëccoo chef de l'opposition jamono jooju ngay xëppoo chef de l'opposition mm, kii di Ousmane sonk di xëccëw chef de l'État jaf lañ jàngat boobu kon mi ngi noonu Modou ah, yaakaar naa jeex na di jéggalu ñëpp di baalu àq ñëpp di am euh, soutien ci Walfadjri di am soutien ci Babacar Touré kéwloo Coro Mandela lu tax ñu koy ñeewant mooy ay borom kër lañu yor ay soxna am na weer yoo xam ne buñ ci tolloo day metti c'est difficile mais nii la ah. yaa yaa dàkkantale sa bopp Mandela <laughs> Mandela nag <laughs> foo ko gis rek du yomb waaye dina mës a daan ñu ngi noonu kon di ñaanal ñëpp jàmm di jégalu ñëpp di jàppale euh, di bàyyi xel Pam Ndiaye aussi di nuyu El Hadj Modou Top lay ak euh, solution yëpp di wax ni nag mën ngeen duñ seetaan di partager mais aussi di commentaire ah di jégalu ci kàddu gi bu dee juum nañ parce que jublu ci gaañ kenn wala ñu tooñ kenn waaye nag euh, moom di ko def ba pare nag kenn du ko wax moom loolu mënta ne. mbokk yi kon jërë ngeen jëf bu beneen yoon incha allah.